tey dañu ñëwoon ci suuf su tedd si suuf su sell si ci gàmmu gi ngir euh, sargal kër Seydi El Hadji malik si ñu sargal aussi Serigne Moustapha Sy bi nga xamante ni mooy responsable moral daayira muhtarchidin wal muhtarchidat mu defal ñu teraanga ju kawe e, dalal ñu wax e, doomam maam Cheikh ndax ci mujjantal bi dafa amoon ngant waaye doomam maam Cheikh e, dalal délégation bi mu nekk mbégte mu rëy ci ñun nekk lu rëy rëy ci ñun chef de délégation bi xalifa Ababacar Sall feeñal na mbégte moomu ak euh, cant googu ñeel sëriñ bi ci yaatoom ci dalal gi mu ñu dalal ndaxte sëriñ bi euh, dafa am ñaari taxawaay benn bi mooy homme politique la ndax parti bi ñuy wax PUR sëriñ bi moo ko jiite ca PUR boobu mi ngi ci coalition bi di ci liggéey liggéey bu am solo liggéey bu yaatu liggéey boo xam ni coalition bi yëpp ñu ngi koy rafet ci liggéey boobu Khalifa Ababacar Sall ci kanamu sëriñ bi wax na ni ñi ngi gërëm PUR waaye ñi ngi gërëm Cheikh Tidiane Youm ci taxawaayam mat gi mu mat représenté sëriñ bi ci coalition bi ci fulla ci fayda ci xeex bis bu ne ngir lu yokk doole coalition bi loolu Khalifa Ababacar Sall ci turu coalition bi feeñal na ko sëriñ bi waaye laneen li mooy sëriñ bi aussi nitu diine la ñu bari ci réew mi yaakaar ko ñu wax ko mu ñaanal coalition bi ba jongante yii ñu jëm coalition bi am ci ay ndam yu kawe kawe kawe ndam yoo xam ni day dellu nekk ndamul Sénégal ndaxte Sénégal ñoo am yaakaar ci coalition Yewwi Askan Wi mu ñaanal ñu euh, coalition bi diggante bi gën a dëgër unité bi gën a dëgër coalition bi gën a yaatu gën a am doole ba li coalition bi yéene ci senegal ci élection locale yi élection législative ak élection présidentielle yi coalition bi mën ko matale lépp dollu nekk njariñ ci ci ci ci Sénégal waaye ñu profitoo ci wax sëriñ bi yéene coalition bi en tout cas yéene bu coalition bi am liggéey ngir jàmm ci senegal ngir dëgëral jàmm ci Sénégal ngir dëgëral dal ci Sénégal ngir lépp li yee fitna rek ñi mën ko génn ci Sénégal en tout cas coalition Yewwi Askan Wi ndaka jekk ci loolu la nekkoon te gën na ko feeñal tey gën ko féddali liggéey ngir dal ngir jàmm yooyu kàddu daal moom la ñu ñëwoon ci sëriñ bi au nom de la coalition Yewwi Askan Wi Eh, sëriñ bi dégg na ko sëriñ bi ñaanal nañu asalaamaaleykum wa rahmatullah